fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bisub màggal Touba bis la boo xam ni soxna Mouminatou Kébé ni mu ko fonkee foo ko takk weesu na ko moo tax at mu jot wàccaayu kawe lool dina ko waajal bis bi ci bépp fànn këram gi nga xam ne moo nekkee ci Touba tam ci dalal mboolem gan yi nga xam ne ñoom lay àndal màggal gi ci la dooree wàccaay wi ci yeesal mboolem kër gi ak dal yi nga xamante nii mboolem gan ñi bu ñu ñëwee ci la ñuy nekk ci nekkin wu mucc ayib ku ne màggal ne bernde moo tax bernde yooyu soxna Momy Kébé def na ci ren ci wàccaay wi lu faw xal lam defoon daaw mu dalee ci ginaar ba ci giléem lenn lu ci ne fàggu na ci la ca gën ci lim bu takku ngir fas yéene ko berndeele gani Sëriñ Tuubaa yi wa tafsiran la dal jinni bashar لباق ما در الذي هذا غدر صلاة الذي أنو أبدا لبي على من بي lépp lu jëm ci xeetum naan moo xam boisson la ak yi ci aajowu bàyyiwuñ ci dara fàggu nañ ci lu takk lool abdat qasaidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar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 صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي bu jëlee njàngum alxuraanul karim gi nga xam ne sëriñ bi moo ko santaane ci màggal gi tàmbali nañ koo jàng ci kër gi te nii lañ ko fas yéene wéyee ba ci bisu màggal gi muy 18 safar nga xam ne limu kaamil yi ñu fiy jàng ci kër gi dana takk lool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 salaatul lazi li xaada kawni xaliluhu